اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المحدوب عليهم ولا الضالين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع عليم اللهم محمد الملك القدوس سريه علي تستميسا تستميسا برهوت برهوت براهيا براهيا أسجيمين أسجيمين أبينونين أبينونين أينونين بارئ الأقسام أبرحني برلي من كل داء وبلاء يا درجليلو يا حسم الكون كون بخلة خولي بقولك لأسياء كن فيكون بحق سلام قولا من رب رحيم أقل أيوب أقل أيوب أقيل أقيل دام تموم أيوم كيوم دكون تدكيون خائم قيوم نحس برقاس يا مبين بين لجميع الأمور يا كاسف اكسف لي سرا وكسالك وكذلك نري الإبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكن من المحمنين يا الجلال والإكرام بحق ربي اسرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل حقدة من لساني يفقه القول الحمد لله الحمد لله قائل لئن سكرتم لأسدنكم nu ngi sant yàlla ndax ñaanoon nañ ko toog ak jotaay émission Wadduha sunu borom may nu nu toog ak yéen tey di dimanche 17 mai 2015 waaye tamit di dimanche di 28 si rajab 1436 fa tabaarakallaa nuy sant yàlla bu baax di ñaan émission bi. tàmbali si bisimilahi rahmaani rahim yàlla kàttanal nu ba mu jaar fa mu daan jaar te mooy nu mottale ko si lépp loo xam ne bii moo nekkoon yéene bi si luy mën a dimbale nit si dundam seen émission Wadduha tey day koy tàmbalee ka xaadati xii di siyaara balay loolu nu ngi ñaan fépp foo xam sunu kàddu àgg na fa nu jàng faatixatul kitab jàng qul huwallaahu ahad xaddiyal ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ko it bépp jullit boo xam ne moo jiitu fa tabarak laa ñaan yàlla yokk yërmande ci ñoom yàlla yokk beesal njëggal ci ñoom di ñaanit yàlla sàmm seen gannaaw fa tabarak nu nuyu tamit kilifa diine yi di leen ñaanal comme ni nu xaadawo di koy def te mooy ñaan yàlla guddal seen fan lool lool lool fa tabarakalaa yokk guddal seen fan yàlla it yokk wéral seen cër ba mission bi nga xam ne bii moom lanu yore fa tabarakalaa mu yàgg lool lool lool lool si ñoom xam naa di ndokkeel bu baax fa tabarakalaa njabootu sëriñ Fadilu Mbàkke si xew-xewu kassu rajab fa tabarakallah muy xew-xew bu rëy di doon xew-xew boo xam ne dañu si fàttaliku sëriñ Fadilu Mbàkke fa tabarakallah nu ngi si ndokkeel mbokk yi yëpp nu ngi si mbokk ndokkeel mbokk jullit yëpp fa tabarakallah di ñaan ñi nga xam ne yàlla def na nu màggali woon ko ñëpp yàlla nangul lépp lépp loo xam ne moom la nu sàkku ji woon say xéewal di ñaanit fa tabarakallah mu doon màggal goo xam ne fa day yokki xéewal lool lool lool lool réew mi dafay yokkit naataange dafay dàqit bekkoor mu ngi ci ndokkeel mbokk yi yëpp fa tabarakalaa di leen si siyaara tey sunu waxtaan seen Wadduha di 28 ñaar fukki fan ak juróom-ñett rajab boo nee rajab nag nga di ramadan ni ma ko waxee woon bi rek di fàttali waale mbokk yëpp koo xamee bi amee woon na baru koor dafa tabarakalaa mu mën koy matal mu jëm koy matal nu fàttali ñëpp it euh, yu màgg la nu yu di yokk bonis di yokk yiw te mooy ku koy man nga di koy woor fa tabarakallah ndax nin ko waxee woon rek rajab saxrullaahi la saxbaan saxru muhammad bu dee ramadan nag mooy saxru umma bi kon mu mel ni ki am na quatre-vingt-dix suur yoo xam ne weer suur la yoo xam ne suur yi la fa tabarakallah mu ngi fàttali wala ñëpp it ku si war a fay koor mu joxe ko sunu waxtaan tey waddu xaaf tabarakallah lu si ëpp danañ ko def si julli te mooy asalaat ndax asalaatu ximaadu diin julli fa tabarakallah mooy bopp diine moo tax tey dañoo yéene def ubbee lu ama ama am solo si gën a ñaax mbokk yi si julli di ndokkel bu baax tamit sunu maam di xalifa laayeen di maam Abdoulahi Thiaw Laay si xew-xew bu mag bii nu dégmal fa tabarakalaa te mooy ajiboo nu ko si ndokkeel fa di si ñaanal taalibe yépp lépp lu nu fóoti si ay yiw lépp lu nu fóoti si xéewal fa tabarakalaa yàlla defal leen ko di si ndokkeel bu baax sunu wëllëre yi nga xam ne moom la ñu am te nu dëkkee yoof sunu wëlëre yi nga xam ne moom lañ am tamit te nu nekk nu bokk si njabootu Seydina Limaamu Laay foto tabarakalaa nu ngi leen di ndokkeel bu baax a baax a baax a baax si xew-xew bu mag boobu nuy dégmal ndax ñu bëri dinañ di dégg Mara Cissé adresse su Mara si nu ne lycée Seydina Limaamu Laay bu Géejawaay fa tabarakalaa depuis deux 2003 ma nekkee dakaar ba léegi yàlla dogal na sama adresse sensé wul lycée Seydina Limamou Laye buntu lycée Seydina Limamou Laye kon fa tabarakallah si barke Seydina Limamou Laye nu ngi ñaanal taalibe yëpp di ñaanal réew mi di ñaanal dëkk jullit yëpp fa tabarakallah yàlla yokk jàmm si réew mi yàlla yokk fi sutura yàlla yi dàq fi bekkoor di nuyu tey siyaara comme nanu aada woon di koy defee ñi nga xam ne seen yaram dafa sutante ñuy ñaan yàlla woyofal yaram yi fa tabarakalaa moo xam jàngoroy physique la wala jàngoroy poos te mu xaw a bëri looli looli fa tabarakalaa ndax fa tabarakalaa yàlla na yàlla def si poos yëpp dara comme ni ko sunu mag di waxee di oustaz Aliou Sall yàlla yokk sutura fa ñu ngi seet way tawat yépp di lay ñaanal yàlla yàlla woye fal seen yaram yàlla yone leen sifa di nuyu tamit tey seet ñi nga xam ne yàlla daf leen a nu nekk si prison yi di ñaan yàlla yombalal leen ak yewenal leen ak ixlaas ñu leen set seet ñoom tamit fa tabarakallah sénégalais yi nga xam ne bii mu ngi daane seen doole bitim réew ñu ngi leen ñaanal yàlla sàmmal leen kër yàlla sàmm leen àll yàlla yombal yombalal leen ay xéewal yanu fóoti ba fa tabaarakalaa la leen war lépp lépp si ñanu baay fii man di mat fii duñu fi dégg lenn lu dul jàmm lu dul salaam mu ngi leen koy ñaanal ñoom ñëpp di ñaan yàlla yokk ci réew mi nanu ko doon waxee jàmm di ñaan yàlla yokk fi sutura yàlla yokk fi teraanga yàlla dàq fi bekkoor yàlla dàq fi lépp loo xam ne bii fa tabarakallah luy delloo umma wala luy delloo réew gannaaw la di ñaanal tamit ñi nga xam ne ñoom la yàlla def nu jiite réew mi sunuy kilifa yi réew mu ngi leen di ñaanal yàlla yokk leen a dëgëral yàlla yokk leen a kàttanal ba fa tabarakallah fi nu yéene àggale réew mi si ay xéwal nu mën koy matal di nuyu bu baax tamit kër gi Siwal FM ak ay kilifaam ñu leen di nuyu di leen ñaanal di ñaan yàlla yokk leen ak kattanal di ñaanal ñu fi liggéey ñëpp it fa tabarakallah yàlla yokk leen di ñaanal it suñu technicien bi nga xam ne moom la ni jàkkaar lool dimanche bu nekk muy alhaji abdoulahi mbeng fa tabarakallah ak képp koo xam ne mu ngi yëngatoo si rojo bi nu ngi lay nuyu di lay siyaara lay ñaanal si weer bu weeru rajab bu mag bi nu nekk di nuyu bu baax di siara tamit ñu fi def ay émission fa tabarakallah ñu fi def ay émission ñëpp nu ngi leen di nuyu di leen siyaara ñu si mel ni sëriñ Makhtar Sarr Serigne Gora Fall Serigne Tafsir Thiam Serigne Ndiaye ñoom ñëpp fa tabarakallah Serigne Ousmane Ndiaye Serigne Baye Demba Faye ñoom ñëpp nu ngi leen di yónnee nuyu ak siyaara di leen ñaanal tamit fa tabarakallah di nuyu njabootu Wadduha yëpp njabootu Wadduha su ma ko waxee fa tabarakallah yaatu na. moo xam ñi nga xam ne na nga kër ga te dinuy jàppale si liggéey bi fa tabarakallah di si jiital Cheikh Ahmed Tidiane Gadiaga sëriñ Babacar Cissé sëriñ Samba eh, al Serif El Wali Sey Badiane ñoom ñëpp ngi leen di nuyu di nuyit it njabootu Wadduha yi nekk Rufisque soxna Aram Ndiaye di sunu jigéen fa tabarakallah ngi koy nuyu di koy siyaara di koy ñaanal moo xam tamit sunu way jur yi nga xam ne noo nekk point 1 ñoom it nu ngi leen nuyu bu baax di leen siyaara di leen ñaanal waaye di nuyu wadduha wakkaam fa tabarakalaa nuy wax ñëpp ne wadduha fa tabarakalaa lépp loo xam ne ittewoo ngeen ko si pharmacie léegi da ngeen ko mën a am wakkaam di nuyu muse ak muse et madame gay fa muse monsieur et madame Guèye nu ngi leen nuyu di leen siyaara di leen ñaanal yàlla fa tabarakalaa yàlla yokkal leen i xéwal yàlla barkelal leen seen i njaboot tamit fa tabarakalaa kon képp ku dëkkee côté yooyu moo xam wakaam Ngor ak képp koo xam ne dëkkee nga côté yooyu lépp loo ittewoo si pharmacie Wadduha fa tabarakalaa soo jëlee jokkook numéro téléphone yi da nga ko fa mën a am numéro bu njëkk ba mooy 77 520 04 85.

sëñ Abdoulahi loolu nekkoon nuyoo bi di sant di gërëm ni ma ko waxee njabootu pit it di leen ñaanal yàlla comme nan ko daan waxee di ñaanal yàlla réew mi yëpp it yàlla yokk yombal fi tëddëgti bak sangu fa tabarakalaa di jéggalu bu baax tey si kaddu gi eh, soj mënu xaw a laal tuuti waaye si yàlla dinañ yéene ak yéen seen émission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 ودها يلا موجيجين يور يور لا لبي لير الله محمد سيسي مارا وقول اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك الحمد لله رب العالمين دي نيو بوباخ تاميت الحاجي فالو سيسي ما شاء الله سي أنا سمبابو نكي نوني سرين كوليبالي دودو دي كوي وحنا موناكو لول waaye di nuyu bu baax Serigne Bara Diouf fa tabarakala si xasida ba am solo boobu nga xam Muhammad Rasulullah fa tabarakala nga xam lu mbokki am cofeel la fa tabarakala ni ñu ko waxee woon doonoo nekk si weeru julli ndax rajab fa tabarakala isra wal mihraj nga xam ne yonent bi riñaane riñaanoon na dem si borom bi jalla jalaaluhu mu farataal si moom juróom fukki julli mu di koy wàññi nu koy wàññil di ko koy wàññil ba muy juróom guddi googu walla jamono jooju moo lanu doon màggal démb ndax kastu mooy ñaar fukk ak juróom-ñaar si weeru rajab julli doon lu am solo doon lu rëy tamit si julli si jullit ndax dinañ koy wax jullit julli mu mel ni ki boo doon seet julli alxuraanul karim bi nga xam ne téeméeri saar la ak fukk ak ñeent baatu salaat baatu julli ñëw na ci juróom benn fukki yoon ak juróom-ñett juróom benn fukki yoon yi ak juróom-ñett borom baa ngi tàmbalee fa sa baqara alif lam mim salikal kitaabu laa rayba fihi ñaarelu aaya ba lan la si teg la sina na bil xaybi wa yuqimuna salat la sina na bil xaybi wa yuqimuna salat fala commencé di tudd julli di tudd salat ba si suratu lam yakun fi mi waxe ni lahul diine hunafa wa yuqimuna salat fa tabaarakalaa kon diggante boobu yëpp sunu boroom a ngi fi tudd julli mu mel ni kili woo xam ne ñëw na juróom benn fukki yoon répété na ko répété na répété wu na soixante-huit fois war na noo xam ne fa tabaarakalaa rëy la moo xam seexa bu mu doone nag moo xam salla wala tu salli walla yu sallu walla yu salli walla salli wala sallu salaataka salaatahu salatuhum wala salatihim salati salawat salawatihim musallina yoy yef fa tabarakalaa ay seexala yo xamne bi batu julli ñëw na ko ci alquranul karim mu melni ki julli amna fu mu fu nu ko meuna tekke ñaan fu nu meuna tekke julli ñaan te danga nga fekk si suratu tawba wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum fa tabarakalaa foofu julli dana fa taxawee taxawaayu ñaan julli bi nga xam ne bii moom la ñuy waxtaanee mooy julli bi nga xam ne mooy xibaada te mooy jaamu yàlla boo xam ne bii yàlla daf ko farataal si jullit ndax baxda saxadatu an laa ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah lan la si teg iqaamu salaat ndax julli su xasee julli su xasee firndeel ak julliteem la jiitu si nu xam ne jullit la mooy muy julli mooy iqaamu salaat fa tabarakallah julli googu moom la ñu wax ne mooy ximaadu diin la mën a tekkee ximaadu diin nag mooy lépp loo luy dox rek lay tax mu dox la nga xam ne bii su fa dañee dara du fa nekk mën na ne julli noonu la taxawee si jullit fa tabarak la ndax mbaar mën nga toog ba mu ba mu lay keral am na lu téye mbaar bi loolu ko téye nag mën na ne mooy julli fa tabarak la di ñaan bu baax di soññi ñëpp di si jiital suñu bopp si nuy a ñaax si nuy gën ñaax njaboot gi si julli ni ma ko xeleel su amee juróom-ñaari at war nga di koy war nga di koy xirtal ci julli su amee lu mat fukki at war nga paase si di koy fàttali rekk waaye su ko fàttee sax jaadu na nga yar ko si fa tabaraka la ba ma xam ne julli farata la julli lu ko war la fa tabaraka la لما دون وخلق أسلة حماد الدين من أقامها فقط أقام الدين ومن تركها فقط ترك الدين فتبارك الله حديث لسي تكتل لسي لنغا حمد موم لم دون وخ لغي فتبارك الله جلد بو سخص جلد فوت مو أم نمو مل نح دانا نك تانف يالايت دانا كوي مي لپ لو خمني لو مصيب loolu du ko jege loolay du ko ñeme fa tabarakalaa yàlla dana koy sàmm ba xolam bëtam làmmiñam tànkam lépp loo xam ne ñaawteef la yàlla daf koy dëddaale ak loolu yàlla daf koy soraale ak loolu kon nga mën si déggee ne sunu problème yu bëri problème yi man nga ne julli mën na régler problème yëpp tabarak laa ndax julli su melee na mu war a mel ka nga xam ne bii saxoon na di koy def faw mu mel noo xam ne nu yàlla gërëm la te su ñëpp góorgóorloon ba mel nu yàlla gërëm rek fa tabarakallah jamono dana mel nu nu foogul woon si ay xéewal ndax borom bi nan ko waxe nanu na ko borom bi wax inna salaata tanha xani faxsa wal munkar jullit bi nga xam ne bii julleem dëggu na lépp loo xam ne ñaawteef la julli julli gi day dox diggam ak loola xadis wax nu tamit man lam tanxaw salaatuhu xanil faxsa wal munkar lam yasidluhu min allaahi ilal baxda xadis wax na nu it ne koo xam ne bii julleem terewu koy def ñaawte te fële lu nu sip kon mom ne yek ne julleegul kon tektal la sene fatu fa tabarakalaa ki nga xamne kep kuy saxoy di julli rek yàlla dana ko dimbale ba mu nek ku xamne lépp luy nakk sudu non yàlla dana ko ci dimbale hadith waxna nu tamit ne awaluma awaluma yuhasibu yu xaasibu bihi alxabda yawma alqiyaama alsalaat fa in salahat salaha saairu xamalihi weyn fasadat fasadat saira xamalihi fa tabaarakala mooy leen doon wax léegi si ne la borom bi njëkk korise bésu penc la borom bi njëkk a xisaab muy julli mu mel ni ki fa tabaarakala su julli jagee rek leneen la sa tege lépp day jag waaye fa tabaarakala ne su julli jagul leneen mënu la jag kon fa tabaarakala la si si nuy gën a góorgóorlu bu baax fa tabarakallah gën tamit di ñaax bu baax a baax a baax njaboot gi si julli comme mooy li ma doon wax rek xaala ni ñu ko xadis waxee xaala sallallahu alayhi wa sallam xam sa solawaat asalawaat xam sa wal jumaxa ila jumaxa kafaaratu li ma baynahuma maanaam taxsal kabaayir fa tabarak la fa tabarak la mu ne ki nga xam ne bii saxoo na di julli diggante waxtu julli yépp lépp lu mu fay def si naka sudu noonu borom bi daf ko koy jéggal niki noonu diggante ajjuma ba ajjuma niki noonu diggante xiit ba xiit kon tegtal la si ne jamonoom yépp fa tabarakalaa day nekk ku ku nuy jéggal si yenn rëcc-rëcc yi ne donte fekk tàbbiwul si kabaayir yi kabaayir yi nag bokk na si <coughs> bokk na si fa kéefër te mooy bokkale sirku billah bokk na si gëdd waay jur wala manqué leen respect waaye bokk na ci sina njaaloo bokk na si fa tabarakallah fen ak rambaaj te yooyu fa tabarakallah benn nekku si jikko bu jullit war jikkowoo kon képp koo xam ne saxoo nay julli yàlla dana ko yàlla dana ko dëddaaleeg fawaaxis yooyu yëpp mu mel ni ki tey serveur bi dafa xaw a séeréere la ma sëñ Abdoulahi wax waaye ci kanam tuuti képp koo xam ne bëgg nga wettilikook ñun mën nga jaar si 70 650 39 18 70 650 39 18 fa tabaarakala bi tey dafa xaw a séeréere tuuti waaye si kanam tuuti da ngeen mën a topp si yoon boobu kon ni ko waxee woon rek na ñëpp gën gën a góorgóorlu ci julli jullit fa tabaarakala lu ni préparé lay doon comme ñu bëri nu koy defee rek mu jot rek nga gaaw a këpp këppal ndax audience la. mu mel ni kii képp koo xam ne mooy woowoon na la ne la am nga audience xaj na sori na sax président de la république waaye bu ne la woon am nga audience ak kii nga xam ne moo yore garaat ci sa gox boo fay dem dana am noo demee dana am noo solo dana am noo waxee tamit rawatina nag audience bi nga xamee ne bii moom ngay am ak jalla jalaaluhu te mooy borom bi ndax jaam bi saa yu ne allahu akbar borom bi. borom bi dindi na kiirlaay la doxoon diggam ak moom yëpp fa tabarakalaa kon nu gën xam na nu say demee di koy jox gëddaam bu baax si laab ga si koddaay ba tamit si teewlu ba ak toroxlu bi muy lu am solo تبارك الله بنيا بوك سنيغا خامي نبي نيكو اي واخي ان المنافقون يقادحون الله وهو قادحهم ويساقموا الى الصلاه خامو كسالا يالا موسل جوليت ييب ييب ييب سي واي ساخامو الى الصلاه خامو كسالا يراؤون الناس ولا يس ولا يذكرون الله الا قليلا فتبارك الله نو مسلوسي بو باخ باخ باخ تا موي جولي غو خامني سا bëtu nit ñi xam ne yaa ngi julli moo la si dugal waaye du ragal yàlla ga fa barak laay duy it toroxlu ga du it teewlu ga nga xam teewlu ba nga xam ne bii moom nga ko moom nga ko war a moom nga ko war a delloo fa tabarak laa nu gën a ñaax bu baax a baax a baax a baax boroom kër yi ni ma koy waxee ndax ni ko xadis waxee kullukum raax wa kullu raaxin masulun an raxiyatihi fa tabarakalaa boroom kër war na saay waxtu jotee mu soññe julli wala mu gëstu ba xam ndax ñi mu njaboote nu ngi julli ndax fa ni commencé di koy tàmm fa tabarakalaa ba nga xamee ni fu nu man di nekk rek su jotee danañ bàyyi seen te yëpp jox yàlla la mu moom ndax 24 heures yi borom bi laajula si lu dul bu baree ba bari vingt cinq minutes yoo xam ne bi moom nga ko war a delloo njukkal moom nga ko war a fàttalikoo ko ndax julli la ci gën a neex borom bi mooy yëg yëg gi nga koy yëg ndax fa tabarakallah it fekk na la si itte nga dagg itte yëpp dem jàpp fa moo xam dem jàkk walla moo xam foo mën a jullee nga taxaw tàllal say kàbbar ne allahu akbar tegtal la si nekkoon gëm nga ne am na ku ni am na borom boo xamee ne bii am na contrat bu dox sa diggante moom contrat boobu moom yaa ngi koy respecté borom boobu tamit yëg nga ko fa tabarakala ndax bu waxtu wa jotee lenn lenn lenn lenn du rëy gën a rëy si yow julli nu bayale ko xel tamit si julli dafa am waxtu di koy respecté bu baax a baax du julli si waxtom fa tabarakallah bañ di muslu bu baax bañ di bokk si ña nga xamene bi yàlla daleni tekk nu ngi julli way julli daleni tekk fa waylun lil musallin allasina hum han salaatihim saahun allasina hum wa yamnahun almaahun bañ di bokk si ñooñu bokk na si di di warmaal heure julli fa tabarakalaa te nu si gërëm bu baax sunu mag nga xam ne diine rek mooy liggéeyam nga xam ne boo demee si www point wadduha point org def na fa calendrier boo xam ne waxtu julli yëpp ma nga fa fa tabarakalaa te mooy sëriñ Khadim Rasoul Gaye nga xam ne waxtu julli yëpp da ngeen ko fa mën a fekk si wadduha point org kon sëñ Abdoulahi mën nanoo mën nan wettali ko ak ñun si 70 650 39 18 bu fekkee am na ko fi jaar danañ wettali ko moom émission bi mu ngi si émission wadduha te 17 mai 2015 waaye doon 18 si rajab 1436 fa tabarakala nu doon laaxe birante lennat si julli ak jullit bi nu mu war a fonke julli fa tabarakala mën ngeen wettali kon tey ñem si 70 650 39 18 bu fekkee sëñ Abdoulahi mën na noo yëkkatil sëñ Diouf tuuti. Seydina نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك كي والدكتنا جوكي على جمود سيزن يرغو وحمارا سيزن ملين أندلون كرافيل خمسون قاف إجاب الرسول سمسول بلاد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 hôtel 77 262 36 28 77 262 36 28. Tire Wadoua, Amna, Radio Siwal FM Midem dem 77 571 59 77 77. Bismillah. Bismillah. allo Bismillah. 70 650 39 18 bismillah bismillah allo waaw bismillah alo waaw bismillah allo bismillah bismillah nu ngi dégg Adja Cissé sant bi hein alhamdulilah mosoon foofu Abdallah moo ñu boole woon ah ndeysaan ndeysaan dëgg la maa ngi déglu sa émission. jërëjëf jërëjëf yal na yàlla barke. ñu ngi koy ziare. yal yàlla nangal nu Adja. Abdallah xam na bu baax sama càmmiñ la. boo ko ne Mariama Dilaate rek moo xam ne. am nga càmmiñ bu baax. <laughs> musoon naa am jaaxle bu ci ma dem si yow nga fajal ma ko. yàlla gi yow. jërëjëf jërëjëf. yal na la yàlla may tawfiq amin amin amin aja yàlla may la gudd fan amin amin amin amin yaa xam loo bëgg si so yal na la ko yàlla defal amin amin ma jaaxle ñëwoon ci yow er, euh, famp nga sama rongoñ olof yee demul noonu wallaay ndeysaan wallaay wallaay kontaan lañ trop jërëjëf jërëjëf jërëjëf ñu ngi lay ziyaare man sama borom kër bu baax wallaay ndeysaan wallaay wallaay nu ngi la koy delloo jërëjëf si kontaan nañ trop yàlla barkeel yaa ma joxoon kii si pour samay doom. dëgg la macha allah loolu yëngu. ak mosu waaye kër. dëgg bu jëndoon naa ko si Abdallah ñoom yëpp. wallaay ndeysaan wallaay wallaay wallaay. yal na yàlla barkeel lépp chaque fois may dégg sa baat. wallaay wallaay la dëgg la dëgg barkeel barkeel njaboot. fa tabarakallah jërëjëf nu ngi koy nuyu bu baax di nuyu sëriñ ba di nuyu di lay ñaanal di ñaanal njaboot yi yëpp fa tabarakallah tey serveur bi dafa séeréere 70 650 39 18 waaye xaw nay doy waar nag serveur bi séeréer baat bi xaw a séeréer <laughs> xaw na doy waar bismillah bismillah sëy sëy yaayu Wadduha jërëjëf sa yaay Wadduha maa ngi lay waaj siyaare si rek mu xaw a dëgg la dëgg la sëy sëy jërëjëf wallaay dëgg la sëy wallaay wallaay ndeysaan lay fay lu bari jërëjëf jërëjëf macha allah dëgg la dëgg la lay déggee njabootam fu mu toll wër na Ablaye wallaay dëgg la dëgg la dëgg la dëgg wallaay wallaay sëy wallaay a sotti <laughs> sama doom yi. xam mm-hmm. na sama rakk yi nekk ci assemblée. Mm-hmm. nee na mënatul nelaw. ndeysaan. sama xarit bu nekk Medina bu ma daan àndal ba ma ko nee na da lay ba nelaw. wallaay wallaay ndeysaan ñun ñëpp lu daal ñuy daal si ñoo ëpp ñuy woote. wallaay lu wér lu wér soxna si. yàlla jërëjëf jërëjëf soxna sama doom moom gëj naa koo dégg. wallaay wallaay wallaay. foo naa ko ba ba jàll xam naa dafa fekk mu occupé. dëgg la dëgg la Adja. jërëjëf yal na yàlla yokk guddal fan yi amin amin amin sëy wallaay ndeysaan jërëjëf jërëjëf wallaay wallaay dëgg la dëgg la yenn saa yi nu jokk kay dinaa jokk ñu bari ñoo xam ne macha allah dañ may tudd sa tur jërëjëf sëy jërëjëf sëy jërëjëf dinañ ko dégg alhamdulilah jërëjëf soxna sëy fi tabarakala yaayu Wadduha nu ngi koy nuyu bu baax di koy siyaara di koy ñaanal di ñaanal njabootam mu mel ni kii am na ku ne si yoon bi. salaamaaleykum. salaam wa rahmatullah. sëñ Cissé. waa Kañ Adja. alhamdulilah. jërëjëf sax alhamdulilah man de. Mhm. émission bi de ba ma nekkee Dakar ba tey dama koy suivre. Mhm, jërëjëf man dama laa fonk trop trop bëgg la te xaw ma la sax ndax li ngay wax rek daf ma jërëjëf jërëjëf Adja. ma bëggoon nag nga may ñaanal bu baax ndax man di tey sax thème bi ngeen jël sax tey dafa am solo ndax. Mhm. Euh, si wàllu julli bi la. ta man teewlu daal dafay xaw a jafe lool. si kàttanu yàlla si kanam mm. dinaa indi ay nawafil yu am solo. waaw yoo xam ne dinaa ko fi bàyyi ay nawafil yu am solo yoo xam ne dinay dimbale nit si kat. waaw waaw mhm. man daal maa ngi doon sàkku bu baax a baax daal suñu mënoon jàppale si wax daal nu ñuy def bay teewlu julli yeeg yooyu parce que souvent problème yi da lay jàpp boo taxawalee julli rek day mel a sa xel mi daal moom day day day day day kii te loolu. Mhm. daan dañ dañ naan baaxul si julleeg yooyu. wallaay wallaay ndeysaan. waaw waaw te loolu tamit dafa sànq tamit dama doon dégg ngay wax ni mhm. euh, comme ni julli dafay changé nit mhm. ay jikkoom ak yooyu mhm. lu wér lu wér lu wér waa ma ma bëggoon nag bu fekkee mën nañu kii baaxee bu baax laa lu tax ñuy teewlu julli yeeg yooyu si kattanu borom bi incha allah dina am ay nawafil yu ma fi may yu ma fi bàyyi si kattanu yàlla allo aha aha barakallah yàlla yàlla barkel ko yàlla yokk ko ndëgër lay yokk ko dàqal seytaane bismillah ki si yoon bi bismillah asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah alaaji Modou waa keñ Adja Cissé man maa sant ñaa ngi ñëwoon fi sànq waa keñ jërëjëf ñaa ngi ngi lay siyaara ñu ngi lay ziar yàlla barkeel njaboot yi la ñaanal yàlla jërëjëf jërëjëf ñaa ñaan yàlla suñu borom bi yàlla na yàlla guddal fan amin amin amin ñaa xam-xam bi amin amin ñang yok mën-mën bi amin amin aja yàlla bàyyi la ci kanam amin amin amin ñang soo ñaan yàlla ci suñu borom def amin amin amin ñang ay ñaan ci kat ci suñu borom jërëjëf jërëjëf yàlla ko yàlla def amin amin aja jërëjëf ma ñu won tank ci ngor sam dëgg la dëgg la xam naa kay dëgg la ñang ñang ñaanal yàlla bu baax ñang jërëjëf jërëjëf yàlla yàlla barkel barkel njaboot yi inshallah inshallah barakallah jërëjëf jërëjëf jërëjëf aja, jërëjëf jërëjëf yal na yàlla nangu ñaan yëpp fa tabarakallah yàlla barkeel njaboot yi dàq gàllankoor yokk xéwal yi 70 650 39 18 mooy yoon bi xam naa suñ demee si kanam tuuti sëñ Abdoulahi naam lu nu fi baaxee say nawaafil yoo xam ne dina baax nit ñi di koy wettalikoo fa tabarakallah bala nuy jaaraat si 70 650 39 18 xam naa tey suñ demee ba sera heure moom da nga ma yewi allah waaleykum salaam wa rahmatulah bismillah 650 39 18 mooy yoon bi ngeen di jaar tey nu ngi si émission ak seen nu fi wettali konte dimanche su nekk si Siwel FM 98 point 0 650 39 18 mooy yoon bi ngeen di jaar tey 70 650 39 18 dafa am ku ne si yoon bi sëñ Abdoulahi mu ngi nii bu baax fa tabarakallah euh, Serigne Kalidou Ba nu ngi koy nuyu ak Alxaaji Modou Cissé Alxaaji Modou Ba di nuyu bu baax sunu wëlëre yi nekk Suwal. Aliou Touré Seigne Babacar Cissé Seigne Antou Cissé di nuyu madame Touré fa tabarakallah di nuyu tamit sunu jigen di koy siara ci magal gi soxna Tabara soxna Tabara Taw foto tabarakallah nu ngi koy nuyu bu baax soxna Farsi la bu bakam momi ngi koy nuyu bu baax fa tabarakallah sunu wayjuri nek point 1 Alhaji Alfuseyni Sagnas Adja Ndeye Fatou Ndiaye ñoom it ñu ngi leen di nuyu bu baax fa tabaarakala sunu wëlëri yi dëkkee géejawaay it fa tabaarakala Alhaji Modou Seck ñu ngi koy nuyu bu baax di nuyu sëñ Moustapha juuf sëñ Fallou Ka bisimilah. salaam wa rahmatulah. Euh, hmm? euh, dama lay faral di déglu. jërëjëf léegi dafa am lu ma la bëggoon laaj. waaw bisimilah. waaw dafa am téere yooyu joxe wakkaam. waaw waaw waaw am na li nekk am si pharmacie bi da ngeen ko mën a am wakkaam incha allah. d' accord man léegi dama war a toxu bees ci benn kër. léegi téere laa soxla woon pour kër. waa jëlal numéro numéro bi jëlal 70. waaw jëloon naa numéro. waaw kon baax na incha allah boo ko woowee ëllëg dina la wax fan la nekk soo demee di nga ko mën a am si kàttanu yàlla. d' accord téere bi mun na sàmm pour kër. si kàttanu borom bi incha allah ak kër ya ko jege sax si kàttanu yàlla. d' accord loolu rek laa war a def ci kër gi wala am na leneen yeneen ñaan yu ma ko war a. moom wàcce allah loolu lenn gën a koy rëy Adja loolu macha allah euh, soo téere boobu si kàttanu yàlla dana mhm. mat kiir laay si kàttanu yàlla. Ah, ah, si kàttanu borom bi jërëjëf naa mais dinaa bahna. ëpp incha allah baax na baax na yal na yàlla barkeel yal na yàlla barkeel fa 650 39 18 waa bisimilah noonu mu ko waxee ñi nga na am si pharmacie Doxa yëpp fa tabarakallah mën ngeen ko fa am ni ngeen ko point ak Tëngéej tamit ak daara ja bisimilah. Salam waaleykum wa rahmatulah. sant bi. seen. seen page cent treize. Hmm? page cent treize. pa page cent treize. page page cent treize. page cent treize. waaw ñu ngi lay Rachid. jërëjëf jërëjëf seen. bu baax jërëjëf jërëjëf seen. jërëjëf. jërëjëf seen. jërëjëf jërëjëf. jërëjëf baax na incha allah seen seen seen jërëjëf ah sëñ seen maa ngi lay door a xam ne seen <laughs> jërëjëf. yal na yàlla barkeel. amiin barkeel njaboot yi. gàllankoor yëpp yokk xewel it. jërëjëf seen seen jërëjëf barakala fika jërëjëf jërëjëf jërëjëf seen 70 650 39 sunu jëlaatee ñaar rek sëñ Abdoulahi nu taxawane tuuti rek ma am ay nawaafil yu nu fi wettali konte ak mbokk yi bisimilah. salaamaaleykum waaleykum salaam wa sant bi Adja. Diop la man la Ramatoulaye Diop. jërëjëf Diop Diop. ok. Diop Diop. ñu ngi ziar bu baax. yal na yàlla nangu Diop. nañ ñaanal yàlla. jërëjëf Diop nu nga koy delloo. ñëw nañ sa sa barab boobu waaye rëccu ñu lenn luñ fa ñëwee si fii. jërëjëf yal na yokk bu baax Diop. li nga def ñu ko yàlla tax. yal na ko yàlla fay. amiin amiin amiin Adja. amiin amiin amiin. amiin amiin amiin Diop. jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf yal na yàlla barkeel jërëjëf 70 650 39 18 bisimilah. bisimilah. bisimilah. mu ngi si émission Wadduha si Siwel FM 98 point 0. ak seen mbokk Alxaaji Modou Cissé bismillah bismillah waaleykum salaam wa rahmatulah. waa Cissé Maram. waa Kën Yaram. Mohamed Diouf maa nañ def. ah Serigne Diouf naa def. waaw Diouf dara ja namm na la nekk de. naka liggéey bi. yàlla na yokk bu baax naka soxna si ak xale yi. yal na yokk yal na yokk bu baax. jërëjëf Diouf kontaan na. Ah, jërëjëf kontaan na bu baax jërëjëf jërëjëf Diouf. amiin amiin amiin Diouf amiin. amiin amiin amiin Diouf. amiin amiin amiin Diouf. amiin amiin amiin maa ngi nuyu soxna si lu bari. jërëjëf. fa tabarakalla sëñ Abdoulahi su nga noo téyel tuuti. yëkkati nu tuuti sëñ eh, kii nu am ay nawafil yoo xam ne dinañ ko wettali contact mbokk yi nu ngi nuyu bu baax sunu jigéen soxna bari banel di koy ñaanal fa la yàlla yokk ko ndëgër laay yàlla mi yokk ko beesal yërmande say waajuram yi nga xam ne noo jiitu macha allah ku fidèle si Mara Cissé soxna bari jëppal nu ngi lay nuyu nga yëkkati nu tuuti sëñ Abdoulahi نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك كي والدكتنا جوكي على جمود سيزن يريغ وحمارا سيزن ميلين أندلون كرافيل خمسون قاف إجاب الرسول سمسول البلاد.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 77 262 36 28 77 262 36 28 Tire Wadoua amna radio rajo FM Midem amna point 1 77 571 59 77 77 571 59 77 Boki Kitabu wadwa Wadduha njëriñam na ngir faj sa mbir wadduha yàlla moo ci giñ yor yor la léppay leer alaaji mamadou cissé maara waa góor allahumma salli afdal alhamdulilahi rabbil alamin fa tabarakallah nu ngi seen émission wadduha ni ma ko waxe woon tey nu doon waxtaan si julli julli fa tabarakallah gannaaw salatul mafruda mooy juróomi waxtu julli yi nga xam ne farata la si jullit mu di koy def am na lu ñuy wax nawafil nu man koy tuddee bonis foto tabarakalaa mu bari lool ay bunt yoo xam ne bii nan koy waxee ne julli audience la mu bari yoon yoo xam ne bii jullit bu ko wéeteeg boroom bi tàllal ko ay loxoom yàlla dana ko tegal si ndabam loola dara mu am soo demee si kitaabu Wadduha indi nañ leen fa ay nawaafil yu bari macha allah te yu am am solo ndax bunt bi gën a jege leen nit ki ak boroom bi julli la bu paasee jàng alxuraan bu paasee takbir ak tasbih ak taxlil te mooy di sikkar tudd yàlla loolooy tax tabarakalaa lépp lu ñuy def rek danañ si boole julli danañ si boole nawaafil danañ si boole ay nawaafil lii julli la boo xam ne bii bëri na bëri na bëri na lu ma koy wax bari na it lool lool lool allah nu teel ma tuuti rek sëñ Abdoulahi lu tolloog vingt minutes wala quinze ñu may woo di wax ne nu ngi koy def te nu ngi si gis seen bopp te mooy ni ma koy waxee rek julli la goo xam ne day defar xol te lëj lëj yépp xol yi la rek waaye su xol yi defaroo lépp lépp lépp ay jag muy julli goo xam ne si faatixatul kitaab la nu koy def julli la goo xam ne bii ñaari ràkk lay doon ràkk bu ci nekk dix-neuf faatixatul kitaab ngay def faatixa ngay jàng si rakk bu nekk fukki yoon ak juróom-ñeent boo sëlmalee nga jàngaat faatixa 132 132 nga ne mooy lan nu ne nga ne mooy xal bu mooy xol mu mel ni ki composé nga xol si faatixatul kitaab da fatihat had naa lepp lu mu mënula defar leneen mënu ko defar tegtal la si ne farata la si julit mu mokkal fatiha ndax julli du wér rak benn rak du wér te amul fatiha boo bàyyee saar man nga ko réparer neneen waaye fatihatul kitab rak bu mu amul du wér mu mel ni kon lu mu néew néew bët bu set julit bi dana jàng fatihatul kitab fukki yoon ak juróom-ñaar tegtal la si ne kon bu ne alquran lépp mu ngi si fatiha tegtal la si kon nu gëm ne dëgg la boobu julli képp koo xame ne bii bëgg ngaa jag bëgg nga jagal sa xol jagal sa xol si lépp luy rëy lépp luy bokkaale lépp lu naka sudul noona yàlla dimbale la si seytaane da seet si sa xol ba faw fa tabaarakallaa maa ngi la koy may nga di koy def loolu macha allah képp koo xam ne yaa ngi jéem ñi ngi ko commencé jëfandikoo ñëpp macha allah nu ngi see gis bunt nu ngi si am ak defaru ndax macha allah saa yu nu toogee rek dina di wax na ndax xol yi jag ndax li ñu téye lépp xol yi la rek te loolu fa tabarak la day. raxas xol si lépp luy safaan waaye day génne dak seytaan si nit tey day gën a jegele nit ki ak boromam ba tey képp koo xam ne yaa ngi si problème nga xam ne ki mën a lijjanti jamono du kenn lu dul jëla jëlalahu ndax dinaa di wax ne lépp tey la yokk waaye tey la jafe-jafe gën bari kon tegtal la si ne am na ku yor am na kuy boroom jamono am na kuy kondir jamonoom te mooy borom bi bu nu fa jógee donte woo warun fay jóge waaye bu nu fa jógee kon war nañ fay dellu képp koo xamee ne bi yaa ngi si njàqare walla tiitaange nga wéetal sa boroom julli ñeenti ràkk naafila bu rëy la nag ñeenti ràkk ngay julli ràkk bu njëkk bi gannaaw faatixatul kitaab yaa ngi def bu xasbunallah wa nixmal wakiilu da nga koy def téeméeri yoon naawaafil yëpp may wax nag fa tabaraka la ak yeneen sax yu ma waxagul mën ngeen ko am si kitaabu wadduxaan ràkk bu njëkk bi gannaaw faatixatul kitaab xasbunallah wa nixmal wakiil moom ngay def téeméeri yoon asbunallahu wa nihmal wakilu moom ngay def téeméeri yoon rakk ñaareel bi gannaaw fatiha yaa ngi def laa ilaha illa anta subhanaka inni naa ku dégg rek xam ne lépp lépp ngi si fa tabarakallah laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina salimin nga xam ne dinaa di wax ni képp koo xam ne bëri bëri na loo koy sikkar doo nekk en otage benn yoon toujours rek da ngay moom sa bopp si kattanu yàlla aaye boobu da nga koy def téeméeri yoon rakk ñetteel bi gannaaw fatihatul kitab yaa ngi def fa xasallah an yahti bil fathi aw amrin min xindihi fa yusbihu ala ma asaru fi anfusihim nadimin allahu akbar xasallah an yahti bil fathi ndax ñaare bari na problème yoo xam ne bii su fatxoo amee rek macha allah njàqare booba dana dàqu kon nga bàkk yàlla si aaya boobu wéetal ko si jàng ko téeméeri yoon rakk ñeenteel bi gannaaw fatiha yaa ngi def foofu fawwidu amri allah inna allah basirun bil xibaat boobu fawwidu amri allah inna allah basirun bil xibaat wallahi inna allah basirun bil xibaat dañ koy waxe yàllaay lépp fa tabarakallah bi yoon la koo xam ne képp koo xam ne yaa ngi may dégg nii te amee problème wéetalal sa borom te nga gëm sa bopp xam ne ki ngay woo ku jege la te ñëpp la fi nekkal wallaahi ku ko def gëm sa bopp gëm na ki ngay wooy lenn nat rëyul si moom fa tabarakallah yàlla dana la si wuyu muy naafila bu rëy rëy moom it maa ngi koy xaddiyal jullit ñëpp si weeru rajab bu màgg bi rakk bu njëkk bi gannaaw fatiha ma baamu ko ko xasbunallah wa nixmal wakilu nixmal xasbunallah wa nixmal wakilu ngay def téeméeri yoon rakk ñaareel bi gannaaw fatiha la ilaha illa anta subhanaka ni kuntu mina salimin rakk ñetteel bi gannaaw fatiha fa xasallah an yaxti bil fathi aw amrin min xindihi fa yusbihu halama asaru fi anfusihim nadimin rakk ñeenteel bi gannaaw fatiha wa u fawwidu amri illallah inna allaha basirun bil xibaad naafila yi ràkk ay nag bu si nekk téeméeri yoon nga koy def fa la ñetteelu naafila bi nga xamee ne bii dinaa leen ko baaxe ba la nuy ubbiwaat yoon bi moom it julli la goo xam ne julli aajo la moom it ba tey ñeenti ràkk la ñeenti ràkk la salatul hajj lañ ko tuddé rak bu ñëk bi gannaaw fatihatul kitab qul allahumma malikul mulki bi si suratu ali imran mom ngay def fukki yoon ak juróom rak ñaarel bi gannaaw fatiha suratul kawsara naxte nakal kawsara mom ngay def momit it fukki yoon ak juróom rak ñettel bi gannaaw fatiha suratul kafirun qul ya ayyuhal kafirun mom ngay def fukki yoon ak juróom rakk ñeenteel bi gannaaw fatiha suratul ixlaas qul huwallahu ahad moom ngay def fukki yoon ak juróom soo sëlmalee nag nga jàng aaya yi aaya yi bu si nekk fukki yoon nga koy jàng aaya bu njëkk bi mooy laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina salimin maa ngi ko doon wax léegi xam nga si fi la bee kon war a tegtal la si ne bu rëy la fa tabarakallah laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina salimin da nga koy def fukki yoon pare hasbuna allah wa ni'mal wakiil moom it nga def ko fukki yon inni yal durra wa anta arhamur rahimin inni yal durra wa anta arhamur rahimin moom it nga def ko fukki yon wa fawwidu amri inna allah basirun bil ibadihi moom it nga def ko fukki yon fa tabarakallah yi ngay jàng bu si nek fukki yon gannaaw bi nga defee nafila bi te mom lañ wax salatul haja kon fa tabarakallah man ngeen noo wettali ak ñun si kanam tuuti dana leen indil yeneen nawaafil fa tabarakallah si 70 650 39 18 seen émission Wadduha ak seen bokk alxaaji Mouhamadou Cissé nu fi wettali konte ak eh, sunu jarbaat di Abdoulahi Mbeng fa tabarakallah dafa am ku ne si yoon bi bismillah bismillah salaamaaleykum salaam wa bisimilah. waaw eh, Cissé. bi. jërëjëf Adja. jërëjëf jërëjëf ñu ngi leen di siyaare lu amin amin aja, amin. amin amin aja. jërëjëf jërëjëf. Walai, ngi siyaare amiin amiin amiin amiin. ngay ñaanal li ngay def yàlla na ko suñu borom delloo. amiin amiin amiin Adja amiin. am jërëjëf jërëjëf. rafet na jërëjëf. jërëjëf barakala yal na yàlla barkeel nu siyaara bu baax mbokki Yoff yëpp bisimilah bisimilah bisimilah. waaleykum salaam wa asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. sëñ bi naa def rek. mi ngi sant bu baax alhamdulilah. man la man la turandoo Abdoulaye Mbengue. <laughs> ah ndeysaan sëñ Abdoulaye. <laughs> na ngeen def na ngeen def rek. alhamdulilah jërëjëf sëñ Abdoulaye. Mbengue Mbengue. soxna ñu ko. wallaay sax aram macha allah wallaay ndeysaan dëgg la. kooku kenn demee moom wax dëgg yàlla kenn la si wa daxa <laughs> wallaay ndeysaan nuyul ma allah mu ngi lay dégg mu ngi lay dégg Abdoulaye nuyul ma mu ngi lay fay bu baax nee mu ngi lay fay <laughs> voilà macha allah jërëjëf dig nañu gisee de waaye sama a ngi ci wallaay ndeysaan wallaay jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf kontaan na lu ngi nuyu bu baax tamit sëñ Abdoulahi Dia ndeysaan di koy di koy nuyu di koy siyaara di koy sentir si message yi waxtu julli yi ki si yoon bi bismillah allo. waaw bismillah. ñu ngi sant alhamdulilah. alhamdulilah. jërëjëf jërëjëf yàlla. jërëjëf jërëjëf yàlla barke leen. te ngeen ngay wootee. waaw ah, jërëjëf jërëjëf. naa sa numéro moom arrêté naa ko incha allah dinaa yàlla barkeel na yàlla barkeel na ngi nuyu mbokki Tëngéej yëpp di nuyu sunu walëre Alxaji Fay bu Tëngéej Fay Tëngéej wala sama séeréer numéro un <laughs> fa tabaarakala nu ngi koy nuyu di nuyu Babacar Dieye nu ngi koy nuyu fa tabaarakala sunu mag si nu xarit moo di Soumaré moom it nu ngi koy nuyu ak soxnaam soxna kamara di ñaanal sëy bi nga xamee ne bii moom lañ doon fas yàlla barkeel ko fa tabaarakala di ñaanal sunu jarbaat yi nga xam ne bii yëpp nu ngi leen amoon nañ sëy si jamono yi fa tabaarakala yàlla barkeel sëy yëpp lu jël ki si yoon bi آه، بسم الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله سيسي آه، سانت بيم زيارة جرجف جرجف دي كونتانت ايميشن بي جرجف جرجف دا مو امون بنن بن سوخلا نك والوم خي بي اها دا دو امون لا ني سي باخي سي كاتلو يالا نوت ناكو ان شاء الله دينا مو خالي وت خيك باخنا ان شاء الله جرجف باخنا باخنا باخنا yal yalla barkel yalla yombal ñepp xey xëy koy waxe fa tabarakallah yombal ñepp wi tedd ak tibb ak sangu fa tabarakallah 70 650 39 18 sen émission Wadduha sen bokk hadji Modou Cissé ak euh, hadji Abdoulaye Mbengue noo fi wettali contact yéen ngi si tay di 17 mai 2015 bismillah

nit di topp it fa tabarakalaa si wadduha point org 3w point wadduha point org bi nu bi bisimilah. waaleykum salaam. Euh, waddal. bisimilah. Euh, Birane Wadd. Birane Wadd. Euh, maa maa ngi ñëwoon sànq si ànd ak mag ah, sant Wadd Wadd. lépp la fi joxe ci lu njëriñ rek yàlla na ko yàlla fay ci àdduna bi. amiin amiin wadd amiin amiin. dëgg yàlla dem nit moom bu la defalee lu baax wax ko waxoo bu la lim ay boo lim ci lim ay noonam na la ci boole. ah jërëjëf wadd. waaw gis nañ lu baax li nga li ñu defal li ko yombalal nga ñu. waaw ndeysaan yow yàlla def la mag yàgg la ak say mag. alhamdulilah yow dafa yëfe xelal macha allah nit ku ñëw ne la samay mag laa bëgg nga ñaanal. loolu du yëfa xeleel du xelu ma sha allah yal na yàlla sàmm la yàlla dàq leen seytaane. allahumma amiin. wadd. amin amin amiin amiin wadd. jërëjëf jërëjëf. jërëjëf jërëjëf wadd. fa tubarakala sunu jigéen soxna Faal moom it ngi koy nuyu di koy wax mu jottalal ma nuyu si naaru Faas. ak sama jarbaat yi yëpp fa tabarakallah nu jël ki yoon bi. allo. bisimilah. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. Oustaz Mara. waa Kañ Adja. man la Ndeye Soxna Wakaam. ah soxna Ndeye Soxna na def na nag def na def na at ah, dëgg la. naka naka naka naka liggéey bi yéen a ngi ci jàmm. mu sant mu ngi sant bu baax Adja. alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah. Oustaz Mara xanaa rek ma ma doon ma baaxee rek loo xamante ne nii pour su boowaay entre jëkkër ak jabar rek. walaay ndeysaan am na solo. waaw loolu boo ñu ko woon moom. Mhm, mhm. dina baax trop mhm, si kàttanu yàlla dinaa si ñëw. incha allah am ah, ah, na waay tamit pour suñu njaboot bi rek. baax na incha baax na. loolu ci baaxee rek incha si kàttanu yàlla noté naa ko bala émission bee jeex dina mën a sant yàlla yàlla barkeel liggéey amiin amiin amiin barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amiin amiin amiin yàlla barkeel xam-xam bi yàggal sa taxawaay amiin amiin amiin amiin aja jërëjëf jërëjëf yàlla yàlla ànd yi yàlla dàq si seytaane léegi macha allah sëñ Abdoulahi couple yi problème yi xaw nay bëri tey it warul woon ànd yëpp Mawada ak Rahma la war doon te mooy cofeel ak yërmande waaye day xaw di nuru léegi ne dafa bari lool alxadaawa wal baxdaa te loolu amuloon yoon bokkul woon si sëy bokkul woon tamit si ñi nga xam ne dañuy ànd di jàmm yàlla fa tabarakallah te lépp lépp lépp nag la ma waxoon rek pexe seytaane rek mel ni ko lu si bëree bëree bëree xol yu tilim yi rek fa tabarakallah problème yu bari loolu la moo tax su loolu defar woon rekk jamono lépp lépp defaru te mooy raxas xol yi yéene te jàmm koo gis ngay moom muy yow lu la nit njëkk am nga yéene ku ko teñaan yàlla am am lu mel noona wala lu ko ëpp sax ndax ka ko jox ñëpp la fi nekkal te mooy borom bi soo sonnee sa loola mooy ëpp njariñ si ngay sonn na la mu am na yàqu si ngay sonn ba mu ma raw si ak yeneen ak yeneen yoo xam ne fa tabarakallah sa xol daf say gën di jeex nga ci am daanu yàlla ëllëg te macha allah sëg mujj moom dana doy waar képp kuy dëkk di def naka sudul noonu si doomu aadama faw wat ba la fi bàyyi ko xisaabam fii lay tàmbalee. si àdduna ñu bàyyi yàlla xel loolu nee naa ñun ñi nga xam ne bii njabootu Wadduha lan te mooy ñu nu yàlla boole ñëpp moo xam fii Sénégal wala bitim réew fa sunu yéene mooy ñëpp ñëpp ñëpp seen kéem kàttan lépp luy xam ne bi luy xeetoog soxor la luy xeetoog xeex luy xeetoog lu yàlla gërëmoon yàlla dàqal na ko fa tabaarakallaa nu góorgóorlu yi di koy daw sunu kem kàttan loolooy sunu yéene sunu yéene it fa tabaarakallaa doon njaboot yi yëpp mucc njaboot yi yëpp yokk ñëpp mucc ñëpp yokk fa tabaarakallaa sababu yi nga xam ne door nan ko moo xam kiis yi nga xam ne moom lañ defar pour njaboot yëpp man di si barkeelu te na ma ko waxee woon rek muy ñaar lay raxas xol pour xelel di jub ak la koy dàqal fàtte moo xam tamit loola nu lay indil ngir njagamaar yi yëpp mën a mucc si saay-saay nga xam ne buñ leen ko defalee lenn du mën a summi seen tubéy nu baal ma si kàddu googu ma wax fi tabarakallah indi leen ni loo xam ne bii jigéen ji war na lor su ko dee jëfandikoo la mu yor yàlla dana ko sàmm foofa dana ko sàmm si biiram ba seytaane du ko fa dugg tey dana mucc maaxa salaam dana imbi si lu dul sasaar yéen ak yeneen ak yeneen yooyu yëpp tabarakallah lan dañ koo dooree rek waaye dana am yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne dina leen ko indil di wax ñëpp ne yokkal nañ leen si e, pharmacie Wadduha Bayre Bayre bu composé lu bëree bëri fa tabarakallah moom it képp koo xam ne ittewoo nga ko jàppane na léegi si pharmacie Wadduha nu koy nu say barkeeloo ñetti junni képp ku koy tëwoo rek mën nga koy am moo xam daara jëla walla si Tëngéej wala point 1 fa tabaarakala wala fa eh, bi ma leen doon wax léegi te ñu ngi dëkkee côté yëpp nu mën ko fay am yokkal na leen si loo xam ne day raxas lépp lépp lépp luy naka sudul noona lépp luy xeetoo njabar dana woo doonte woo ña doon njabaral na noo la njabar soo ko jëfandikoo dana set sa yow tey kiirlaay lay doon ba lépp lu la ne sànneeti day dellu sa moom loolu fa la jàppandi na si pharmacie Wadduha nu say barkeelu juróomi junni fa tabarakalaa moom it képp koo xam ne ittewoo nga ko fa la mën nga ko am si barab yooyu ma wax yeneen ak yeneen ak yeneen it dana am si kattanu yàlla ndax macha allah. yéene bi mooy lépp lu nit ittewoo rek mu man di yomb lool fa tabarakalaa ak fu ma mën a nekk moo tax nu yokk leen si wakkaam du ñàkki danañ leen si yokkal yeneeni barab waaye képp koo xam ne yore nga ku wan na lor ni ma koy waxee am na si ordonnance yoo xam ne amul lu dul si farmasinu borom bi te mooy alxuraanul karim nuy bàyyale xel bu baax doon naa koy wax si ne jamono dafa lëndëm léegi te it euh, fa tabarakallah bëri na si ñoo xam ne nu ne la ni utee alal nu ne la ni utee alal am na si ñoo xam ne seen utuwaay la ni la leen di may alal duñu koy utee lu dul si ku xam ne dafa wan lor bu ko defee lan lanu koy sànni maara day taali su dajeek mu jàpp rekk la mu yor mën nay loru yooyu du koy bàyyaale xel si nuy yokk di muslu bu baax nanu koy waxee si di aar njaboot gi it yi di aar dëkkuwaay di fexeet njaboot yépp nekk benn maxaba ak mawadda nekk seen diggante fa tabarakalaa yooyu day am solo day dalal xel tey day yokk guddal fan ndax yenn at yi soo ko amee toujours rek sa xel day war di dal sa xol di neex waaye su at yi yokkoo yaram bi xaw a sutante te toujours xol bi di naqadi yooyu fa tabaraka la day xaw di doy waar <coughs> ku si bëgg a mucc nag teel di préparer rek teel di préparer ña yàlla yi booleel ba nga xam ne bii lépp macha allah xéewal lay doon ba tey naafila bi naafila bu rëy rëy la bu am solo si képp koo xam ne da bëgg a tukki intixaal min makan ilal wala min balad ila balad boo yéene woon ne dama war a dem suba vacances Canada wala dama war a dem moo xam Guinée wala dama war a noonu dem France wala yaa xam fu mu mën a doon rek boo ne suba ngay dem nga def naafila bi naafila bu rëy la ñi nga bàyyi ña nga fa bàyyi da leen bàyyi ak kontaan te boy delu ci ma sha allah da nga delu ci ak mbekté bu yàtto yàttu foog naa loolu lu mata xam la fa tabarak la naafila yi yep nak comme ni ma len ko waxe man ngeen ko ñi nga xamne bi am nañ wa do hadan ko fa fek ñaari rakka ngay def rakka bu njëkk bi gëna fatiha wa yanqalibu ila ahlihi masruran mom ngay def téeméeri yoon wa yanqalibu ila ahlihi masruran moom ngay def téeméeri yoon gannaaw fatiha rakk ñaareel bi gannaaw fatiha wala saw fa yuxtika rabbuka fa tarda moom ngay def téeméeri yoon rakk ñaareel bi soo sëlmalee nag nga jàngat wala saw fa yuxtika rabbuka fa tarda comme ni ma koy waxee ne ndeysaan barke Wadduha na nga say sàkk wala saw fi yuxtika rabbuka fa tarda na nga say sàkk it wala al axiratu xayrun laka mina ula yal na ko yàlla defal defal ko ñëpp wala sa fa karabu karabuka fatarda boobu danga koy def junni yoon soo paree nga def yaa jamilu 66 soo paree nga def yaa xaniyu yaa moxniyu yaa waxaabu 313 xaniyu moxniyul waxaab 313 lii fa tabarakalaan naafila bu rëy la si képp koo xam ne bi da nga bëgg tukki boo ne suba ngay dem si guddi gi moom nga koy def ñaare rakka rakka bu njëkk bi gannaaw fatiha wa yanqalibu ila ahlihi masruran rakk ñaareel bi gannaaw fatiha wala sawfa yuxtika rabbuka fatarda boo sëlmalee it nga defaat wala sawfa yuxtika rabbuka fatarda junni def yaa jamilu 66 def xaniyul moxniyul waxaab nga def ko 313 fa tabaarakallaa loolu nu ngi koy nu ngi koy baaxee ñëpp it muy la boo xam ne képp ku bëgg a tukki boo ne suba ngay dem nga koy def kon sëñ Abdoulahi mën na noo topp si 39 18 70 650 39 18 tey fa tabarakallah serveur bi dafa xaw serere, séeréere waaye ñàkku li ñuy dégg baat bi danañ xam ne baat bi xaw na séeréere tey tuuti 88 600 subhanallah 70 630 39 18 mooy yoon bi ngeen nu mën a bi ngeen nu mën a toppee di nuyu bu baax tamit fa tabarakalaa sunu jarbaat yi soxna Ndiaye bu aéroport mu ngi koy nuyu bu baax di koy ñaanal nekk noonu soxna Amina Ndiaye di sama doom moom it maa ngi koy nuyu di nuyu waajuram fa tabarakalaa soxna Amina Faye moom maa ngi koy nuyu di nuyu ay waajuram di koy jaale ñuy jaayam bi fi bàyyi ko di ñaan yàlla yërëm ko xare ko aljana nu jël ki si yoon bi bismillah waaleykum salaam wa rahmatullah yaram alhamdulilah jaxate jaxate yaram jërëjëf jaxate nu ngi sant alhamdulilah eh, yaa tudd tur bi de <laughs> eh? leen jaare bu wër wër alhamdulilah jaxate jaxate yàlla yokk amin yàlla boole na ko amin amin jaxate yàlla boole na ko ah jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jaxate bare bare amin amin jaxate jaxate yàlla boole na ko ñëpp jërëjëf jërëjëf jërëjëf. xam naa waxoon naa ko jógee bu baax. Hmm? allo. waaw waaw sëñ Jaxate. xam nga ni jamono yi woon naa la bu baax. dëgg la dëgg la. ngeen ñaanal bu baax a baax a baax. jërëjëf jërëjëf Jaxate. kontaan ci yow li ñuy li ñuy déglu nag mooy ëpp wax dëgg yàlla. walaay walaay ndeysaan walaay walaay walaay Jaxate. yàlla yàlla fay la. amiin amiin amiin amiin amiin yaram yàlla. yàlla xamante ne waaye bëgg naa laa gis loolu loolu. incha allah yal na yomb tabarkel. wallaahi wallaahi. yal na yomb tabarkel. yàlla barkeel la yàlla fay la. amiin amiin amiin jaxate amiin. baax a baax a baax. jërëjëf jërëjëf ah, takk naa la takk naa la nangu loon la kayit di ñaan yàlla. barkeel Ablaye Mbek moom mën na mën na <laughs> nee na dëgg la wallaay wallaay wallaay jaxate macha allah jaxate almadi almadi laa dëgg dëgg la dëgg la jaxate waaw allah ndeysaan wallaay wallaay ndeysaan yal na amin amin jaxate amin

wallaay ndeysaan dëgg la dëgg la. amin jërëjëf. amin amin amin amin amin lu bari jaxate bëgg nañ jërëjëf na yàlla barkeel yàlla nangu ñaan yëpp incha allah wallaay ndeysaan wallaay wallaay wallaay ndeysaan jërëjëf barakala fikka ndeysaan ma ne ko bég na lu bari jaxate yal na yàlla nangu ñaan yëpp macha allah ne ko nit ñi ñu baax lan sëñ Abdoulahi ñu ngi nuyu soxna Xujja job gis na message bi nekk noonu Maram gay ñu ngi leen di nuyu bu baax tabarakallah ñu jël bi bismillah bismillah السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله waa koñ Adja. Diouf la. jërëjëf Diouf Diouf Diouf. alhamdulilah Diouf. ziar rek. Diouf yal na yàlla nangul nu Diouf. ñaan rek tabarkalla yal na yàlla barkeel. amiin amiin Adja. yàlla mottali sa yéene si biir bi tasay la ko. amiin amiin amiin amiin Diouf amiin. tabarkalla kontaan nañ. jërëjëf jërëjëf. Diouf di nuyu sama mbokk moom oote léegi dëkk Yoff. soxna Fatou Gueye walaay ndeysaan soxna Fatou Gueye dëgg la. jërëjëf. jërëjëf jërëjëf Diouf. jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf. yal na yàlla barkeel yal na yàlla barkeel leen. fa tabarakallah eh, koy waxee rek mbootaayu famille Wadduha wala ñëpp macha allah. ñu yàlla dimbali leen dégg nga sa sëñ jaxate nee na mu ngi si deram yor kurusam fatu barakala ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen nit ka salika noonu mu ngi ñaan yàlla nangu ñaan yépp fatu barakala yàlla def ko si kër yi def ko si quartier yi def ko si gox yi def ko si dëkk bi def ko si réew mi bu ko defee lépp lépp lépp day jàkk fatu barakala 70 650 39 18 mooy yoon bi tey xam naa moom incha allah sëñ Abdoulahi du ñàkk bu sër heure jotee du ñàkk dina ma mën a yeewee incha allah bu ko defee nu ñaan yeneen i dimanche si kattanu borom bi nu toog fi wettali contact yéen tey baat bi dafa xaw a séeréere tuuti nax soj waaye yéene woon naa toog fi ngeen dégg déggante ak yéen fa moo waral nu toog fi ngir wettali contact yéen nu jël ki si yoon bi. bisimilah bisimilah bisimilah. allo. bisimilah Yaram. waaw man la benn auditeur maa ngi Wakaam. benn auditeur bisimilah. waaw. Mhm. bisimilah benn auditeur. dama lay faral déglu toujours. jërëjëf. waaw kontaan naa ci émission bi bu baax. kontaan si woote bi tamit. waaw dafa am yu bëri bëri yu may suivre ci émission bi. Mhm. toujours damay bëgg a woote mais des fois du fekk ma yor crédit. walaay ndeysaan walaay. waaw. Mhm. maa bëgg naa la bu baax. walaay ndeysaan jërëjëf. te sopp naa la aussi. jërëjëf jërëjëf. waaw. jërëjëf bëggoon naa am sa numéro tamit. incha allah si kàttanu yàlla numéro Wadduha di nga ko am léegi incha allah. mën nga def 617 70 44. 70 44 77 ngay def. 77 77. 70 44. 617 70. waaw 617 70 44. allo. waaw waaw. waaw. Mhm. jël nga numéro bi. waaw 617 70 44. waaw 70 44 waaw. d'accord incha allah boo si wootee mën ngay jot direct incha allah. du am intermédiaire. <laughs> yàlla baax na yal na yàlla ubbi. amiin amiin incha allah. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. jërëjëf jërëjëf jërëjëf yal na barkeel la. waaw damay ah. suivre émission bi ma ne nelawuma wallaay wallaay wallaay yàlla barkeel la jërëjëf. amiin amiin amiin jërëjëf allah jërëjëf jërëjëf. waaw. Ah. yàlla barkeel la. amiin amiin mm-hmm, mm-hmm. baax na jërëjëf waaw. nu ngi nuyu bu baax tamit sunu jigéen soxna Lika Sidibé. fa tabarakala lëkk Sidibé journaliste noo ngi koy nii bu baax sama wëllëre sëriñ Modou Guèye bu Tëngéej maa ngi koy nuyu bu baax sëñ Modou Guèye ak rakkam ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen siyaara nu jël ki si yoon bi. salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah. yàlla nangal nu yaaram. salaam amiin jërëjëf jërëjëf. alhamdulilah. jërëjëf jërëjëf. Eh, ñu ngi lay sàkk ñoo ngi ñaanal ñoo ngi lay ñaanal bu baax de wax dëgg yàlla. jërëjëf yal na yàlla nangu lépp yaram. alhamdulilah amiin amiin amiin. jërëjëf. émission yi daal day mel ni bi su set rek nun nun nun nga koy dama daan kii daal man man rek lay defal émission man lay waxal. wallaay ndeysaan wallaay wallaay. wallaay damaa nekk ci ay xat-xat yoo xam ndeysaan. maanaam fi mu toll nii bu may génn sama kër benn yoon rek la mën a jaari te boo xam ne damay damay soree mu ngir maanaam ay ay ay tolof tolof ki bor yu bari wallaay wallaay wallaay wallaay yal yokk sutura <laughs> dëgg la wallaay moo bi ngay joxe laay laay laante subaa nag ni kuntu mina zaalimiin daal yëpp moom maa ma ne daal moom naa jàpp ci kanam ndax moom <laughs> yàlla yàlla baax na sutura dina yokk si kattanam alhamdulilah alhamdulilah yal na yàlla bettee xewal allahumma amiin amiin jërëjëf jërëjëf yaaram jërëjëf amin amin amin amin naa la ñeent rakk ba ma joxoon léegi. wallaay wallaay wallaay ndeysaan yal yal na yàlla yokk a xéewal yi dàq gàllankoor yi fa tabarakallah yàlla yokk sutura euh, li ñuy wax sottaar lu am solo la te mooy sutura yal ko yàlla defal ñëpp ñëpp. fa tabaraka waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam wa ah, sant bi. Cissé man la Thierno sëñ Thierno Diouf. Ah, <laughs> naa def waaw alhamdulilah Diouf Diouf ah, Diouf. Diouf Diouf bi gëj naa laa dégg. maa ngi doon laaj sa jarbaar bi tey rek. après ñu ngi lay ñaanal jërëjëf Diouf ñu ngi la koy delloo bu baax a baax di nga yàgg ci kanam bu baax a baax amin amin amin amin Diouf bu baax a baax a baax amin amin Diouf amin nga def askan yi nañ ko bu baax a baax a baax ñu koy jëriñu de jërëjëf jërëjëf sëñ Thierno waaw léegi léegi léegi maa ngi koy wax nii sama gars yi nii fan léegi léegi nii wallaay ndeysaan wallaay waaw ñu ngi lay ñaanal taw fee de amin amin amin Diouf sa ñaanal sa njaboot bu baax amin amin Diouf Diouf ma ñoom seex bu baax a baax dinañ ko dégg allah dinañ ko dégg yàlla ñu ngi ciy jariñu de wallaay yal na yokk yal na yokk lu bëri ñu ngi ciy jariñu baax yal na yokk sëñ Thierno jërëjëf askan yëpp ñu ngi lay ñaanal kon guddal góor gu yaram wallaay wallaay Diouf waaw Diouf jërëjëf waaw na ñu koy déggante rek na jërëjëf rafet na jërëjëf waaw jërëjëf jërëjëf sëñ Thierno jërëjëf Thierno Diouf macha allah baax na incha allah sëriñ Thierno Diouf macha allah doon wëllëre si Wadduha moom it macha allah ñu ngi koy ñaanal lu bëri yàlla 70 650 39 18 mooy yoon bi xam na sunu demaate tuuti rek ñu bismillah bismillah. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. Oustaz Mara man bismillah. ah oustaz dafa ma bëgg rek nga baaxee ma ñaan boo xamante bii soo koy soo koy def yàlla dina la yokkal njaboot tuuti sax. wallaay ndeysaan wallaay lu bëri yàlla li am bëri na macha allah. <laughs> njaboot goo xam wallaay ba bëgg nga baaxee ma ko yàlla tax. si kattanu borom bi incha allah dinaa naa ko ma toolu bi. baax na baax na yoragul nga njaboot. ah. yoragul nga njaboot. yàlla gum naa benn. ma amaat beneen mu delluwaat. yàlla baax na amaatuma. yàlla baax na yàlla na yeneen ñëw si kattanu yàlla. bëgg naa nga baaxee ma sama. baax na incha allah baax na incha allah baax na baax na. incha allah te nga ñaanal bu baax a baax waaye. incha allah incha allah soxna. incha allah maa ngi suivre émission bi. baax na noté naa ko incha allah baax na. waa kay waa kay baraka la fi. amiin waay yàkk amiin amiin jërëjëf jërëjëf. kii Bada Diop Thiaroy jot nañ message bi fa tabarakallah ñoo ngi koy ñaanal di ñaan yàlla nangu siyaar ki si yoon bi bismillah waaleykum salaam wa rahmatullah jërëjëf yàlla nangul mhm. jërëjëf jërëjëf jërëjëf Adja jërëjëf soxna Awa jërëjëf yan yàlla nangu jërëjëf Adja incha allah si kàttanu yàlla buntu lycée maam Limaamu Laay bu Géejawaay <coughs> incha allah si kàttanu yàlla boo agsee si buntu lycée bi dend ak tali bi da nga jàkkaaroog bu bu tudd tuuba téléphone. si kàttanu yàlla boo fa demee dina la woon dëkkuwaay bi incha allah baax na baax na Adja jërëjëf yal na yàlla barkeel la jërëjëf jërëjëf amin amin amin Adja amin amin amin amin amin jërëjëf yal yàlla barkeel la barak la incha allah incha allah Adja jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf barakala fika yal na yàlla barkeel ko 70 sëñ jëlaatee ñaar nu ñëw si li fi ñëw si ay laaj incha allah su bismillah 650 39 18 70 ngay def 6 30 39 18. tey 88 bi daa xaw a séeréer moo tax bisimilah. sant bi Adja. maa dellu sa waat. yaa ah, xam ne. waaw. soxna mu woote woon sànq moo ma tax a duggaat. ah ndeysaan ndeysaan. ma mhm, mhm. bi gis nga Fatiha bi sax. ba pare nga def ko 32. boo si taxew rek di gis njëriñ. wallaay ndeysaan lu wér lu wér kay Adja wallaay wallaay wallaay. man ngeen xamal bu mu taayee rek na jàpp incha allah. dina wallaay wallaay wallaay ndeysaan. jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf Adja. seen émission Wadduha ak seen mbokk Alxaaji Modou Cissé Mara Cissé ngeen ñuy topp si 650 39 18 bismillah. bismillah trois-neuf, dix-huit. émission Wadduha accent vocal, Hadji Modou Sissé. bismillah di fàttaliwaat ñëpp fa tabaraka la pharmacie Wadoha, ne man fa am bayre man fa amit toccal lu rocc lépp lep, lépp luy liggéey si katunu Yalla may la kir layit bo xam ne kenn du la sané lu la dal si katunu borom bi sëñ Babacar moom doon sama sang moom it maa ngi koy nuyu bu baax fa tabarakallah jot nan message waaleykum salaam wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah allo Adja bismillah ah sëñ ma Cissé sant bi Adja ah, bajan. Badiane Badiane Cissé Badiane Aysatu ah Mam Khadi. ah maam Khady ah, bajan, Badiane Cissé jërëjëf Badiane Cissé lii de yàlla ko man wallaay ndeysaan Badiane Badiane damay a ndeysaan wallaay wallaay daaw ma rate benn ñaanal rek gudd fan ak wér amin amin amin yàlla bàyyi la ci suñu kanam sàmm la amin amin amin amin dama doon sàkk aussi boo ñu mënee dimbali ci ay ñaan si ay ku nekk ci ay mm-hmm, mm-hmm. Mm-hmm. baax na incha allah. waaw ak ak baax na incha allah baax na baax na baax na baax na incha jërëjëf jërëjëf jërëjëf Badiane si kàttanu yàlla na ko baax na baax na jërëjëf barakallah barakallah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 ñu boole ko indi leen ci ay ñam bu ci nekk ak lu muy faj li jabul rasul di jaasi noon xamsul xaaf di yokk koom kamsul maalik di saafara si lépp loo xam ni ci bépp métitu bët ak yeneen métit ñetti téere yi lañu boole di ko wéccee ko si ñaari junni kon jàpp leen li jabul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 ginnaw lycée limamu lay Alhamdulillah, Alhamdulillah rabbil alamin ñu <clears throat> ngi seen émission Wadduha fa tabarakallah ñu ngi gërëm bu baax mbokk yi nga xam ne jaar nañ si message yi di nuyoo di siyaara ñu ngi ñaan yàlla nangu ñaan yépp it yàlla barkeelal siyaara yépp fa tabarakallah di fàttali waale ñëpp it taksi Wadduha bay tey si kattanu yàlla képp koo xam ne am na loo lu jëm si daara ja si kattanu borom bi yàlla mën na la ko yombalal teg si Wadduha fa te mooy loo ittewoo bëgg mu indil la ko wala mu jël si lay delloo la wala yaa xam ne loo ittewoo fa tabarakallah ku si jokko ak Cheikh Ahmed Tidiane Gadiaga si kattanu yàlla mën nay jàppandi fa mu am mel ni ki li fi jotte ñëw si ay laaj bu paase. suma juumul ñett la ki nga xam ne doon na laajoon na luy boole njaboot loolu fa tabaarakalaam maye woon naa fi ñaari saad saad bi si suratul sayfi ak bi si suratul ixlaas ko defee na ko defar fexe njaboot gi yëpp dugal turu njaboot gi yëpp si saat bi si ixlaas moom tura mu nekk ci saat bi si sayfi fa tabarak képp koo xam ne def na fa turam lan koy wax weccooxal la yàlla danaa def seen diggante ak juboo aaya boobu it si suratu Al Imran yaa ayyuhaa allaziina aamanu isbiru wa sabiru wa rabbitu wa taqullaaha la'allakum tuflihun moom it bind ko toggale ko ndawal dama am res fexe say njaboot xewlu ko fa tabarakalaa dana yombal mm, mm, cofeel ak bëggante nekk benn nekk seen biir te loolu day lu am solo sunu jigéen bi doon wax mbiru njaboot moom it aaye boobu ma fi doon wax rabbi laa tasirni fardan wante xayrul na lu am solo la si kàttanu yàlla si koo xam ne day ñaan njaboot mën nga koy def cinquante cinq mën nga koy def sa limu tur boo xamee sa xadda du tur nga di koy def lim boobu di si ñaan fa tabarakallaa yàlla dina la may ay njaboot wala nga bindulu faatixatul kitaab cent quatre cent quatre-vingt-neuf mooy tolloog li mu fattaaxu ba pare da nga koy def saafara def ko ndox bu bari di koy naan yàlla man dana lay yombal njaboot ba tey it fa tabarak la euh, yaa mu teexin yaa mu teexin soo ko xaddaday day tolloog latif loolu képp koo xam ne bëgg nga say njaboot di bennoo yenn saa yi lu nu bëgg rek nga jënd ko boo ko nga jang ko si so vingt neuf nga séddale len ko fa danay def sen xol bëggante tay kenn du si def kenn du si may sen digal te fogg na loolu lu am solo la comme ni ko doon waxe rek borom kër ak surga bi gëna mag ci kër na ñaare te borom kër go xam lo wax safan contraire ba la ni def fa tabarakalaa loolu borom kër bu nekk warna di koy muslu da koy def rek ëf ko si ay fruits ba pare nga jox leen ko nu xewlu bëggante dina am seen diggante tayit tayit kenn du si mooy sa ndigal loolu lu am solo la ki doon wax mbiru xëy lu yombalal xëy doon fi wax ne kullama daqala alayha sakriyal mihrab bind ko yax bi rek ngay bind noonu doo ko tomb doo ko sadda juróom-ñaari yoon bii nga ñawee ko lu weex takk ko bii nga def ko saafara di koy sangoo yàlla mën na lay yombalal ak fatu mën na lay yombalal ubbeeku ma ànd ak di sabablu it fa tabaarakala ndax li may wax ne looy utti rek da nga koy utti fa mu am fa tabaarakala mooy tax eh, ku teju ñu ma koy xeñaare nit du tëj du ne dama tëju mukk tey xëy di tëdd ba ngoon ñaare ka ngay mën a tuddeeku te tëju mooy toujours ma ngi sababu lépp lu nit di def ngir am xéewal ma waaye dara jàppandi xaw na jafe loolu nag ñaare nañ ko waxee mën na doon yaa quelque chose fa tabarakalaa ma ne ko mooy tax comme jullit ñaan rek la am jullit mar di ñaan ki nga xam ne yam du jeex te mooy borom bi di koy yombalal ay xéewal fa tabarakalaa te. xéewal moom mooy lépp dinaa ko weex ñu bëree bëri su day wax ne tukki rek laa bëgg mu ne ko déedéet day wax xéewal laa bëgg xéewal macha allah soo tukkee day dàqati bu dee da nga ko bëggoon waaye soo toogee su yàlla defee tuddul tukki si yow it xéewal lay doon kon yal yàlla defal ñëpp ñëpp ñëpp xéewal moo xam xelal bi nga xam ne toll na si ut da nga xam ne macha allah teral way jur ni mu neexee bettee sa way jur bi makk ni mu neexee fa la ut keur se way jur nek fa ngay xey di len di gis ñu lay ñaanal ni mu nexé fa tabarak la kep ko tollu nga si yalla ba nga bi xey dina yomb si yow te xey yi di and ak barke dina koy wax nan nan di barke kontu barke lu ama am solo la moy tax ñaare ngay gis machallah nit doore lu tuti dama dama dem ba doon lu yem ñep loolu lu koy waral mooy barke kon nan di sàkku gën sàkku barke te buntu am barke mooy jub jubal ak nu jël ki si yoon bi tey sàkku ngërëmuy way jur lu am solo la di warmaan ñëpp ndax insaan fatabar képp kuy doomu aadama rek warmaalal ndax dañ ne nitu yàlla lan waaye nit ak yàlla leneen la ki yoon bi bisimilah. salaamaaleykum wa rahmatulah. salaam wa jërëjëf yal na yàlla nangul moom. Hmm? waaw maa ngi bëggoon naafale yi nga joxoon. naafale yi. si ban ban si ban. si ban nga koy teewoo woon. maanaam ñeenti ñeenti ci. yi. ñeenti ñeenti nga mujj jox. borom bi. fi nekk nga borom bi. boo daa ilaa si waan indi ko dina waa dinga ko am legi inshallah allah katou kattan yàlla wa ni'mal yeneen ñaar la moo fàtte xaw taala si si borom bi mu ko rek si yàlla allah wa ni'mal wakiilu yaa koy fekk Ala Imran 173 ak ni'mal wakiil rek day am la wa ni'mal wa ni'mal laajte rek. waaw moom ngay def waaw. 173. ah 173 wala sa astafirullah aaya 173 Al Imran nga koy fekk 100 fois nga koy def. waaw xaw laa ilaaha illa anta subhanaka inni kuntu mina salimin. surtout yaa ngi koy fekk anbiya 87. kii faxasalax an yaxti bil fatxi aw amrin min xindihi fa yusbihu ala ma asru fi anfusihim nadimin. yaa fekk Maïda. Maïda waaw kay. fawwidu amri koy fekk hmm? xaafir. koy fekk xaafir. xaafir. nga koy fekk waaw. bu dee waaw waaw. boo boo waa ñaan moom day am tëj ak ubbi mooy xas la nga say dogu rek ñaan booy ubbee nag ubbeeg eh, raxasal sa ndab ba mu set fa tabarakallah te loolu mooy istixfaar julli si yonent bi doora def la ngay ñaan door a def sa xastu sa yéene boo paree it nga tëjee ko loolu tëjee ko julli si yonent def sa ñaan julli si yonent bi sallallahu alayhi wa dafa am ku ne si yoon bi bismillah bisimilah. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. ah sëñ waa kañ yaram. Eh, ñoo ngi eh, sant yàlla bi ñu la jotee. jërëjëf jërëjëf. waaw macha allah ñi la ñaanal yàlla. jërëjëf yaram. li ngay def ci askan bi yàlla na ko yàlla fay. amiin amiin amiin amiin yaram. sant bi nag moom dama ko leb parce que sant neexul. <laughs> jërëjëf. <laughs> dama lay déglu nag. heure bu nekk. mais rajo bi sax parfois du neex. walaay ndeysaan dëgg la dëgg la. dëgg dëgg loolu moom damay parfois su ma génnee fenn rek su ma génnee Dakar day métti loolu pour ma jot. walaay walaay ndeysaan yaa ngi ak site bi waddu wadduha point org. 98 daal laa ko jàppee. ma ne duggagoo si site bi waddu xa point org. ah d' accord boobu naa ko xool incha allah incha allah si kàttanu yàlla mboolem émission bu nu mos a def ma nga fam. waaw naa ko xool. Euh, gise bi sax laa doon bëgg mais comme lii la ma yàlla jàkkukum pour l'instant naa ci jàpp. walaay ndeysaan yal na yàlla barkeel jokko bi ne. waaw man may faral yeewu xaaj guddi. Mm-hmm. di bëgg di naafi la mais bëggoon ko ma ci yoon naafi la. walaay ndeysaan lu am solo la. walaay walaay walaay boobu mooy bi njëkk beneen. Mm-hmm, mm-hmm. ñaan yàlla parce que li may liggéey dafa xaw a sensible trop. du lu dëng nag. yàlla ma ci yàlla musal du lu dëng. walaay ndeysaan mais li ci ñaan yàlla. musal ñu muccal ñu. wallaay ndeysaan dëgg la dëgg la wallaay wallaay wallaay wallaay. boobu daal laa bëggoon ñaan googu. incha allah si kàttanu yàlla. baax na baax na. jërëjëf. na jërëjëf yal na yàlla barkeel. jërëjëf yàlla barkeel. incha dinaa fexe ba ñëw seet la ginnaaw gàmmu lay. incha baax na baax na. jërëjëf Cissé baax na jërëjëf barakala fiik. jërëjëf Cissé jërëjëf jërëjëf jërëjëf. Mhm. macha allah yàlla yokk sàmm yàlla yokk mu muccal comme noonu mu ko waxee fa tabarakallah di wax ne julli ñaan rek rek rek la am ngir yàlla di koy dàq lépp loo xam ne safaan la waaye di koy jàppanda la lépp loo xam ne xéewal la te macha allah xéewal day ànd ak ngëneel mooy tax moom la ñuy wax toujours que lu waaye di ñaan na say boole te mu jig te mu mais bu dee xéewal rek day ànd ak njiglaay fa tabarakallah dafa am ku ne si yoon bi bismillah bismillah euh, ban ban nga 52 52 mooy 44 mhm, alhamdulillah kon seigne abdullahi mo man nga no teyel téléphone bi fatabarakallah ñuy sant yàlla bu baax comme ni ma ko waxee woon danoo yéene eh, arrêté si zéro heure bi fa tabarakallah ndax baat bee xawa a tuuti lépp loo xam ne jub na si nag si lu nu fi wax nu santee ko yàlla lu si safaanu nu koy jéggalu yàlla di leen koy jéggalu yéen tamit di wax yéene bi mooy toujours rek nu fi wettali contact yéen seen émission Wadduha di ñaan nanu koy waxee rek ñëpp mucc ñëpp yokk loolooy suñu yéene di nuyu wëllëre yi xarit yi soppe yi nga xam ne bi fa la yàlla nu boole ñoom ñëpp ak ñi nga xam ne bi tey lañuy door a tombé si émission beeg ñi si tombé gu ñëpp it fa tabarakallah nu ngi leen di ñaanal di fàttaliwaat ñëpp ne pharmacie Wadduha fa tabarakallah am na bayre yokk nañ si toccal loo xam ne day raxas lépp lu nekkoon njabar bàyyi fay kiirlaay ba kenn du la sànneeti lu la dal si kattanu yàlla ngeen mën koy amee point 1 si 70 922 23 75 70 922 23 75 ngeen mën ko amee Rufisque tamit. 77 262 36 28 waye ngeen man ko amé daara je di way si 617 70 44 fa tabarak laa ñu wakam tamit nu man koy 70 889 53 25 fa tabarak laa Lolo nekkoon sen émission di nuyu bu baax tay sargal di ñaanal ganam gi fa tabarakalaa yàlla barkeel ko seen émission Wadduha ma nekkoon loolu di gërëm it sëñ Abdoulahi bi nga xam ne moom la fi doon wettali konteel lépp lu si jub nu ngi koy sante yàlla lu si safaanu nu ngi leen koy jéggalu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu alhamdulillah yaa rasuulilay bëggu yonnen bee gëm ba wóolu yonnen yaa mata نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك كي والدكتنا جوكتي على جمودو سيزي نيريغو أحمارا سيزي ميلين أندلون كرافيل خمسون قاف إجاب الرسول سمسول بلاد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 wadduha yàlla moo ci giñ yor yoor la léppay leer alaaji Mamadou Cissé Mara waa góor